askan wi yeewoo ci Touba Soura tey jii ci subaak àllarba gi jamonoy fukki waxtu ak benn aw tiis ak aw naqar lañu xëyee benn doomu aadama buy wuyoo turu Modou Fall war a am ñaar fukki at ak lu teg moom nag mooy dox ba ci yàgg mu daal di daanu faatu buñ sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne ni bàyyikoo na ci waajuram moom kat ñoom ñaar ñoo waroon a ànd jóge ci kër ga di dem benn rob waaye mu far jiitu ko ci jamono yooyu sax ci lan woo police ak sapeur pompier ngir nag ñu ñëw def costa lan moo sabab fatom googu waaye ci teewaaw yi ay mbokam rawatina waajuram dikkaat na nag ci feebar bi nga xam ne nii moom mii di Modou Fall doon na ko wéyaale. Lamine Fall laa fii li fi am daal mooy dama xëyoon doon dem benn rob bi ma demee ba ci yoon wi ñu woo ma ni ma sa doom ji doon na ñëw ci rob bi ngay dem far daanu si yoon wi. bi mu si yoon wi tamit yàlla suñu borom dogal ci li mu ci dogal. waaw feebar yi am daal ci ci entrain ci jamono yi nga xam ne ni police ak sapeur pompier ñëw nañ. gis nañ itam teewaayu wa croix rouge di jamono yi ñi nga xam ne ni fii ci dëkk bu tedd bi di Touba dañuy taxaw seen loxo ci mbirum coronavirus ñoom seen ndaw teew na fa loolu nag moo tax jamono yi nga xam ni taskati xibaar ñu ngi laaj Fall lan moo sabab ak dan lena galangkor gàllankoor ay mbokkam ñoo ko gàllankoor waaye gëstu yi nga xam ni def nañ ko ci kii di Modou Fall ak ak faatoom nee kat ku ñeme woon entraînement la da doon ay poids loolu ñu ne dafa dog am hémorragie interne. jamono yi ñu wax yéen nag am néewam jël nañ ko ba yóbbu ko la hôpital Matlaboul ni bu Touba ngir def ay gëstu. ba xam lan moo ko faat waaye buñ sukkandikoo ci yenn kàddu yoo xam ne ni bàyyeekoo na ci ay jegeñaaleem moom mii di Modou Fall ku ñemee woon entraînement la da doon yëkkati ay poids loolu nag moo tax ñu njort ne dafa dog ba sabab ak faatoom mu mel ni du ne guleet ñuy gis yu demee nii ay ndaw yoo xam ne nii dañ leen di fekk ñu faatu wala ñuy dox ba ci yàgg ñu ñàkk seen bakkan lu ci maanaam koor bi mu ngi fawsé ni ngir ñu xool ba xam lan la résultat yi di génnee